ñu bokk sant yàlla subhaanahu wa taala ñu sant ko ci xéewal yam ñu xéewalal ci xéewal ya nga xamante ne ci xéewal yu mag ya nekk fa moom la ñu bokk mu di ñu wax ci maana aaya alquran bu dee dangeen fi nekk naan dangeen ngeen géema da ngeen di géema lim xéewal yamaleen xéewalal du ngeen ko peeg du ngeen ko jeexal waaye tamit moo ñu ne wa ataakum min kulli ma saaltumuh jox naa leen lépp loo xamante ne laaj ngeen mako ko jox naa leen lépp loo xamante ne ñaan ngeen ma ko buur subhaanahu wa mooy buur bi ñu may lépp luñ ko ñaan xataa luñ ko ñaanul saxte mu xam ne bokk na ci lañ ñuy soxla buur yàlla may nañ ñu ko subhaanahu wa ba tax na ci loolu lañuy sant yàlla ci xéewal yam ñu defal mu doon xéewalu nelaw bi nga xamante ne ñu ngi ko doon jëfandikoo waxtu su néew ci ginnaaw ñu daal toftal ci nelaw woowu yeewute bi nga xamante ne moom la ñu yonentu bi ne képp ku yàlla wërsëgal ba nga jógee ko ci nelaw woowu bul daw bay xiixat bul jël lu diis di ko yëkkati bul def nenn toogal ci sa kawlar rek nga daldi di baat bi nga xamante ne moom la ñu yonent bi bàyyil ci njàngaleem yu matali moo ne na nga sant yàlla wax ne alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur cant ñeel na yàlla buur bi nga xamante ne moo ma delloo sama ruux gannaaw bu mu dogalee sama jëmm ji bu ndaw waaye nag wa ilayhi nushur ci moom yàlla lañuy ñuy dellu subhaanahu wa taala kon nga gis ne doomu aadama bi sant na yàlla ci xéewal bam ko defal waaye delloo na yàlla moomel ba mu moom doomu aadama jooju su ko defee nga déggee ci njeexantalu ñaan boobu mooy wa ilayhi nushur su ko defee mu doon baat bi nga xamante ne doomu aadama bi da koy tudd saa yu mu yeewoo ci nelaw yal ko yàlla yombalal amin ya rabbal alamin mbokk yi ba léegi ñu ngi ànd ak yéen ci nasiha ba ñuy jëmale ci lenn ci suñu ndaw yañu ñu war a teewal ci pencum ndaw réew mi mu doon assemblée nationale bi nga xamante ne ci kanam tuuti ndem soob na suñu boroom dipite yi dinañ fa teewal askan bi waaye ñu bëgg leen baaxe fàttali leen aaya alquran ba buur yàlla di wax ne baada audu billahi min alsheytaani arrajim maa yalfadu min qawlin illa ladayhi raqibun atid waaw buur yàlla suñu borom tabaraka wa taala mu ngi nii di baaxee yonent bi ci téere bu mag bam ko wàccel di alquraanul karim mu di ko wax maa fadu amul dara bépp baat bi nga xamante ne doomu aadama bi dina ko yëkkati amul dara ci baat ba doomu aadama bi di yëkkati ci kàddu ludul dul boole naa ko ay malaaka ya nga xamante ne ñooy ña koy contrôler di ko wattu di ko saytu di ko bàyyi xel ci nekkin boobu kon ndegem doomu aadama boobu moom la buur yàlla ne lépp lu muy wax lépp lu muy wax lépp lu muy yëkkati ci baat na ko bàyyi xel ndax buur yàlla subhaanahu wa taala mu ngi koy bàyyi xel di ko contrôler ci la nga xamante ne loolu lay nekkee moo tax mu ne amul benn baat bu doomu aadama bi di wax lu dul dinañ ko contrôler dinañ ko bàyyi xel te dinañ ko ko àtte keroog bés pénc te moo ne am na ñoo xamante ne tey jii la yàlla xam ah nañu jàppee loolu rekk waaye doy na waar waaw buur yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala mu ñuy wax ci saar bi ci suratul qaaf amul benn baat bu doomu aadama bi di yëkkati di ko wax lu dut man yàlla xam naa la tax muy wax loolu ak kañ la ko wax ak fum ko waxee ak num ko waxee kon ndegem dañ ne la na nga contrôler na nga jël mesure ci la ngay wax ah na nga jël mesure ci la ngay wax waaw mbokk yi aaya bi da di aaya bu raglu waaw yàlla ne maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid amul baat amul kàddu amul xarf ba doomu aadama bi di génnee ci gémmiñam mu di ko wax lu dut manko ràngoo ak ñaari élément ya nga xamante ne ñu ngi enregistré loolu doomu aadama bi di wax mbokk yi yow mi nekk assemblée nationale di député yow mi nekk ci terrain bi di campagne na nga bàyyi xel la ngay wax nanga wottu yàlla ci say kàddu buur yàlla ne amul baat amul ñepp amul xarf ba doomu aadama di yëkkati ci baat ya muy wax ci gémmiñam min qawlin la yàlla wax yalfaz lafz mooy lettre xarf min qawlin bi ñu war a comprendre bu dee lettre bi comprendre ñu ko yàlla ne man xam naa suyte leetar bi fu muy jëm ak la la ko tax a jóg bu dee baat ya nit ñi comprendre la nag loolu dafa leer loolu nit ñi comprendre nañ ko yàlla mi la ko waxloo moom it comprendre na ko xam na ko sax waaw nee na nag yaa layta mu doon lay njëriñ nit ñi mu doon la lay njariñ loolu moom gaay dinañ ko bind ñaari malaaka yi la yàlla gàll dinañ ko bind de waaw illaa ladayhi lu dut nekk na ci ñoom ñaar raqib ak atiid raqib ak atiid ñaari malaaka ya yàlla gàll doomu aadama ñu di contrôler ay kàddu yu muy wax kon bu fekkente ni mbir bi nii la demee kon ana li fi nekk nga bëgg convaincre nit ñi ne yaa fi nekk la nga wax mooy li am la nga wax mooy li war a nekk te wóor na la ne loolu ngay wax danga bëgg a nit ñi waaye amul dara li fi nekk luy exister est-ce que mënuñoo bàyyi xel suñuy kàddu ya ñuy génnee suñu gémmiñ ay chroniqueur yaa ngi toog ci télé yi ñu ne ay chroniqueur lañ ñuy wax rekk di wax rekk di wax rek or ko yow miy wax la ngay wax kalay lay déglu ci këram ku lay déglu ci teleem ku lay déglu ci téléphone am moo la gën a xam la ngay wax mais kooku doo ko sooraale ba nga wax la tax mu di la naw wala li tax mu di la gëm li tax mu di la respecte mais yow nga jàpp ne la ngay wax yaa ko gën a xam ñu lay déglu mais loolu catastrophe la te wóor na la li ngay wax nii amul dara lu ci taxaw léegi da ngay xool télé yi xool débat yi da nga naan waaw ñii est ñu ngi sóoraale ña leen di déglu wallahi laazim da ngay lay sa bopp est-ce que ñii ñu ngi sóoraale ña leen di déglu est-ce que ñii ñu ngi bàyyi xel ña leen di déglu mu ne yow yaa ngi toog di défendre benn idée wala di défendre benn cause boo xamante ne dëgg lalu ko waaw bànneexu bakken dong moo la yóbbu foofu mais eh, te ngaa wax dëgg fañ la invité plateau la ci lañ la invité débat bu fekkente ne sa argument wi taxawul xam-xam lalu ko joxel ngànt nga bañ a feeñ waaye bëgg a feeñ télé bëgg a toog ci plateau yi ngay wax di wax di sànni rek <coughs> bés bu ñu <coughs> bés bu ñu redressé plateau yi yow dootoo dem plateau ah oui soit nga changer sa doxalin rootee ci géeju xam-xam na war a toog ci plateau yi di wax xam-xam waaye illaa nga ni muut bañ a toog ci palaatu yi waaw ndax yàlla jox na la avertissement ci aaya bi faale woo ko yonentu bi salaa sallam mu ngi nii mu di la jox avertisement ci xadis ba nga xamante ne saxaabi bi ko doon laaj nga saxaabi bi moom daa bëgg xam làmmiñ ba ko yàlla dénk ana lu mu war a wax lu mu warut wax léegi amaana moom da doon toog di xalaat waaw mais man lan laa war a wax ak lan laa waruta wax mu ne comme yonent baa ngi fi di dund te maa dem ci yonent bi laaj ko ana lan laa war a def ba mucc lan laa war a def ba mucc ba xam dama yow damaa war a saraxe ba mucc wala damaa war laa war a def ba mucc saxaabi yi baloon laaj yonent bi lii mooy uqbata bun amir radiallahu anhu nee na qultu ya rasulallah yow mi yàlla yónni mal najaat ana lan muy mucc lan nit war a def ba mu mucc lu mu lan nit war wax ba mucc lu mu lan nit war a nekkee ana nan la war nekkee nan la war nan la nit war a nekkee bi mucc yow mi yàlla yoon maa bëgg nga wax ma wax ma lan muy mucc bëgg naa mucc de te képp ku mbaax ñor war naa bëgg mucc ndax jamono ñuy jamono ji fu muy jëm ku bëgg mucc nanga nga déglu la yenentu bi tontu saxaabi bi moo ne saxaabi bi de bu mu doon laaj yenentu bi seen jamono jamono jooju yàqute feeñut lu baax jamono jooju yàqute feeñut lu bari jamono jooju yàqute melut ni ni mu mel nii suñu jamono ànd loolu saxaabi bi ne ko qultu ya rasulallah yow mi yàlla yónni mal najaat ana lan mooy mucc qaal yonent bi ne ko mucc boobu nga laajte de sik alayka lisaanak na nga téye sa làmmiñ bul di wax n'importe bul di wax lu neex bul di wax n'importe bul di wax lu ne bul di wax loo xalaat wax lu ne am sik alayka lisaanak tiil sa làmmiñ ci waxu mbóosóor tiil sa làmmiñ ci wax li nga xamul tiil sa làmmiñ di jëw nit ñi tiil sa làmmiñ di ayibal nit ñi tiil sa làmmiñ di lor nit ñi tiil sa làmmiñ yow kër bi yow député bi yow boroom kër gi yow soxna si yow chef d'entreprise bi yow employé bi képp ku bëgg mucc yonent bi ne na nga téye sa làmmiñ boo demee bay wax na wax yiw wa illaa nga ne mut noppi bokk na ci la ko yonent bi tontu sallallahu alayhi wa mu ne ko mucc boobu ngay laajte de mooy wali yasaaka baytik na la sa dëkkuwaay doy yaatuwaay bi maana da gàtt tànk bul dugg fu ne ngay nekk di taxawaalu rekk ku tàmm di taxawaalu ci dikkuwaayu nit ñi boo fa yóbbaalewul dara am ling fa jëlee boo fa yóbbaalewul information jëlee fa information moo ne bi mbokk yi bu doon laaj yonent bi ana lan mooy mucc mel nii dafa am la ko yàlla xamal ne ko mujjub jamono nit ñi dinañu wax bi ñu créé kuréel ba ñu naan topp kaa comme ni ñu koy déggee topp kaa topp kaa yow nga bokk ci kuréel ya ñu naan yee yaay dañoo tuddee seen bopp topp kaa kaa bi ngay topp ngir lan ayibal dañoo jël tur bi masqué ko waaye tur bi déggantaan bu fekkente ne dañ kaa teg ci pénc bi gars yi duñ duñ ko nangoo fésal ku ci nekk tamit dañ lay xeeb ndax tuur bi dëggintaan xam nga lum xam ngeen lumu mooy ayibal nit waaw loolu mooy turu dëggintaan ayibal nit ñi waaw ñi suturay nit ñi ñu jël tur bi maske ko format bi ñu tëggaat ko beneen anam ngir nit ñi mën ko war a mën a consommer ñu jël slogan ba nit ñu teeraateer yi nekkee ñu ne topp kaa ngay topp kaawu nit di topp ayibu nit di bëgg wuññi ayibu nit ci sa làmmiñ xam ngeen lu mu defam moom de daa àndandoor ak kii ñu def lee xam ngeen lu mu def kooku ñu ko jox ngir mu jàngal ko fii la mujjee moom xam ngeen wujj bi nu mu defak ñaareel bi wala lu mu def ak wujjam fii la ñu mujjee xam ngeen ñoom ñaar lu ñu mujje ak seen boroom kër fii lañu mujje boroom kër gi de mais di wax ak euh, fait divers yoo xamante ne mais mel ni nit ña leen di déglu ñoom it loolu moo leen di neex yow nga yor sa téléphone jënd ko xaalis bu bari jël sa connexion di ko jënd defoo ci recherche pour xam defoo ci recherche pour jàng defoo ci recherche ngir la ngay liggéey nu muy war a muy war a yokkoo waaye nga jënd sa connexion di ko dégloo topp kaa di ko dégloo loo xamante ne boo ko dég boo koy déglu sa xol day bon sa xol day metti ngay am yërmande jëmale ko victim ba ñuy nettali histoire ña koy nettali duñ ko utal solution yow mi koy déglu doo ko utal solution ñaan bu gàtt bañ naan yan na ko ko yàlla teggil sax doo ko wax loo ci am mooy déglu ko ba pare yow it nga dem toog feneen naan xam ngeen li wax topp kaa xam ngeen li wax gis nga bekkañ bu fekkente ne lenn ci askan bi lii mooy la tax ñuy am téléphone kon ñoom xamuñu luy njëriñu téléphone bu fekkente ni lii mooy tax lenn ci askan bi ñuy jënd connexion di ko dugal seen téléphone di déglu lii kon ñoom xamuñu valeuru connexion luy loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne saxaabi bi ne wali yasaaka baytik na la sa dëkkuwaay doy yaatuwaay bul taxawaalu fu ne bul nàmm sa tànk daas ko fu ne nga di fu dugg mu ne ko bokk na ci la tax ngay mucc mooy wabki ala xatiatik na nga dugg sa ruxu a kan ngay jooy say bàkkaar wallahi mbokk yi bu fekkente ni képp ku def bàkkaar yàlla soppi ko xet bu naqadi am na ñoo xamante ne duñu mën a dëkk kenn am na ñoo xamante ne duñu ñu mun a toog ak kenn waaye maa la asaf heureusement ba ko yàlla defee mu doon péché bi nga xamante ne boo ko defee sa conscience moo koy njëkk a yëg yàlla defu ko mu doon lu am xet mbokk yi est-ce que mun nañoo imaginer bu dee yàlla dafa def bàkkaar mu doon xet bu naqari xet bu xeeñ képp ku def bàkkaar xet bu naqadi topp la foo dugg gaay dar seen loxo seen bakkan kon nit ñi duñu mën a nekk ci aafiya soit ñu bàyyi bàkkaar wala duñu mën a xejoo kenn ñaar loolu benn la ci soit ñu bàyyi jëf bàkkaar wa illaa duñu mën a xejoo kenn waaw bu dee bàkkaar yàlla daka def mu doon benn xet bu naqari boo xamante ni képp ku def bàkkaar yàlla montel la xet bu naqari boo xamante ne foo romba ñu dar seeni bakken ñu di tuflit wallahi ñaari mbir yi benn mooy am soit ñu bay bàkkaar duñ ko def walla ñoo ànd ak suñ xet bu naqari moo tax yonent bi ne ko del jooy say bàkkaar yow nga yore bàkkaar bu toll ni innama doo toog jéggalu yàlla sa bàkkaar doo toog ñaan yàlla mu jéggal la sa bàkkaar nga ne da topp kaa di wax erreeru nit ñi ngay ñooñu def nañ bàkkaar ok man def naa bàkkaar mën naa jàllar beku ñaan yàlla mu jéggal ma mais yow miy toog fenn di ko fa nettali ci anam ba mu ko deful la si manqué nga yokk ko la ma deful nga dugal ko nga gonfle ko ba nit ñi war maa xeeb yow it yaa ngi fàggul sa bopp bàkkaar parce que ñàkk am la ngay def ñàkk xam appareil bi nga yore ñàkk xam connexion ba nga fay dugal ba ngay déglu ba ngay nar a déglu ay kaa loolu yëpp ñàkk yeewu la ak temps bu doy bi nga am waaye bu fekkente ne dañ laa surchargé di la di la occupé loo loo xamante ne dañ la ne fii kenn du fi liggéey ak téléphone booy liggéey téléphone bokk ci ngay xëy cinq heures trente dem jël bii six heures six heures pile sept heures war laa fekk ci liggéeyukaay ba nga liggéey bay bëgg dee nga wàcc ñëw tas wallahi yow dinga tal leneen lu dut woote ak wuyu ak déglu ay message loolu ngay talka di déglu ay kaa nit ki def na bàkkaaram des na digganteem ak boromam yow ana lu ci sa yoon ngay dem toog ci tele yi ci rajo yi ngay gémm a décortiquer xataa njiiti réew mi day wax lenn ba ñu tànn ci li ci gën waaye la mëngoowul ak seen gisin moom la ñuy teg ci pénc bi di ko décortiquer kilifa diine bi day wax lenn ba léegi ñu tànn ci li ci gën ñu di ko développer waaye la mëngoowul ak seeni gis-gis la teg ci pénc bi di ko géem a décortiquer ñu tuddee seen bopp ay xeetu yi yaay ay chroniqueur moo tax ñun dañu war a bokk di ñaan yàlla di ko ne jaalana allahu wa iyaakum min allazina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana lii mooy nopp garmi nopp garmi day nangoo dégg lu baax day nangoo dégglu lu baax day nangoo topp lu baax nit ki wax na dix minutes ci biir fukki minutes yooyu mu doon wax tànn ci li si gën yow nga opte loolu tànn ci lu si jub nga opte loolu tànn ci li si gën a rafet yow nga doxalee noonee leneen loolu bàyyee kook moom bu ko gémm a décortiquer bu ko gémm a bu ko gémm a bu ko gémm indi si pinc bi loolu boo koy def ñam mbaax ñor dañ nan yow ku conscient nga yow ku baax nga yow ku am xol bu baax nga mais gis nga bés boo optee di jël waxu jàmbur di jël erreur ya fa nekk di ko teg ci pinc bi yaa ngi xeeblu sa bopp képp ku mbaax ñor dalay lay dañ ne képp kuy jël kàddu nit ki di ko salfaañe di ko wëlbati di ko àndee di ko tëggee beneen format bu wuuteeg nu mu ko waxee te loolu ngay tëggee ci sa format wu bopp loo ci jublu mooy doya dal ko suufeel ko wan nit ñi kii du dara yaa ngi suufil sa bopp ci kanamu képp ku mbaax ñor waaye man dama lay woo nañu bokk dem ci beneen vole bi vole boobu mooy alladina yastamiuuna al qawla fa yattabiuuna ahsana nga xamante ne dañuy dégg kàddu ñuy jëfe la ci gën ñuy topp la ci gën a rafet gis ngi bés boo dégloo nit ki mu joxe discours ba pare moo xam imaam la moo xam journaliste la moo xam njiitu réew la moo xam kenn ci ministère yi nga tànn li ci gën rafet yow it nga indi sa argument gën koo gën a jooyanti walla nga gis ni fii sama xalaat lii laa ci war a teg donte benn kàddu la nga ñambaas ko ci lu mu wax ci lu baax képp ku mbaax ñor dañuy gis ni yow boroom xol bu laab nga boroom xol bu yaatu nga defar moo la tax a jóg waaye léegi chroniqueur yi dañuy géem safal gis nga léegi dafa doy nañ leen jël débat bi teg ko ci niveau xam-xam nañ leen jël débat yuy xew ci semaine bi ñu teg ko ci niveau xam-xam wallahi bu ngeen ko defu jamono dina ñëw képp ku tàmm débatterateur yi ñuy gis nii wallahi jamono dina ñëw débat bi day élevé wu boo amul xam-xam doo toog ci plateau doo toog ci plateau yi di wax ndax boo waxee feeñ te boo feeñee ñu xeeb la te buñ la xeebee dootoo tekki dara débat yu teeraa teer yi dafa doy léegi xuloo adversaire ay mëgum jëmm jël sa temps yëpp guddi bi yëpp nga consacré ko deux heures de temps trois heures temps nga di ko consacré ci li nga xamante ne moo ne ma maa ko ne moo ma ne maa ko ne ñoo ne ko moo ñu ne ba ñeenti at yi lu ñu dund ci loolu doy na léegi nañu leen tourner tendance bi wulbati ko yóbbu ko ci côté xam-xam yóbbu ko ci côté xam-xam affaire bi élevé wu tuuti xaw a yëkkatiku waaw ñuy wax ci niveau ba xamante ne mooy ana lu ñu war a tëral mbëkk bi dakk bu dakkut na wàcc ba cinq pour cent waaw wala dix pour cent minimum parce que mbëkk bi moom immigration mënuñu koo tere waaw mënuñ ko wotere ba mu jeex tak tak tak tak mais quand nañ leen xool yan vole lañu ñu war a installé vole yi lañu ñu war a ubbi yan buntu lañu ñu war a ubbi xale yu jigéen ñi am xëy xale yu góor yi am xëy ndax ñoo fi nekk di mbëkk ñoo fi nekk di jël gaal yi ñuy sànku seen bopp ci géej gi donc nañ leen jël débat bu teg ko ñu bañ koo bàyyeeg état beeg gouvernement ba kañ débat yi ngay xool ci tele yi débat yi ngay déglu ci rajo yi da nga naan non kiy invité moom day jël position hatta journaliste bay invité sax moom au lieu mu tëddee njaaxaanaay da ngay gis ne kii dafa da maanaam moom it dafa am clan bu mu bokk parce que ni muy waxee loolu dafa war a jeex léegi nañ leen wax ci wallahi législative yi bu jàllee débat bi day yëkkatiku par nii wala par naa par A ou par B débat yi dañuy yëkkatiku képp ku fi nekk di doo wax la tax nit ñi di dégg képp ku fi nekk doo wax la tax nit ñi di la may nopp yow mi ci sa jëmm bopp yaay toog di xalaat man mais man affaire bi ni mu soppeeku ni ay jël ay nit di ko di leen teg ci plateau yi ñuy wax lu neex ñuy wax lu ne ñuy jël position ferme ñu naan loolu ay démocratie la loolu da di démocratie waaye nañ leen jël débat bi bul bëti ko andi ko ci beneen format bi nga xamante ni moo gën a amal nit ñi njëriñ ñu indi solution yi lan moo war a nekk solution ngir affaire yi tegu ci yoon lan lan luy solution léegi solution la ut nañ leen bu ñu bind solution teg ko def ko ci livre léegi nañ leen ko teg ci tele yi ci rajo yi ñu di ko waxtaanee ñu di ko ñu di ko ñu di ko ñu di ko ñu di ko leeralal nit ñi ci anam bi nga xamante ne sénégalais lambda bi da ciy comprendre da gis boppam mbokk yi loolu mooy lañ leen andil ci waxtaanu fajar bay jaar ci Rewmi FM 97.5 waxtaan bi jeexul nag. dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñuy ñaan yàlla suñu borom lu jub si kàddu gi ñu sante ko borom bi lu ci dëng nag matadi doomu aadama la ñu ñaan yàlla suñu borom an yaj'alana min alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana allahumma ya rabbi aati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'man nasir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 aquulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli zambin fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu